nuyu bu baax euh, di amati mbégte ak kontante jàkkaarloog ak yéen mbokk yaakaar naa yéen a ngi koy gis ci image yi ci ngoon ba léegi ñu ngi King Fahd ànd ak euh, le grand artiste Pape Diouf le leader de la génération consciente ngeen gis album bi nga xam ne annoncé na ko pour génn ko mais tey nekkoon euh, sorti premier clip bu muy def pour album bi gis ngeen yéen image yi ngeen ci gis macha allah xam naa bu ngeen demee ba ci kanam lu ci bari dina leen leer ci moom. grand ñi ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm di la bàyyi nga nuyoo ak mbokku internet waaw salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum rawatina nag waa Sénégal suñu réew mbay maa ngi lay nuyu bu baax euh, man tamit di nuyu suma jigéen Zeyna Bamba borom Seneweb di nuyu suma xarit Bour géwél ah géwél Gueweul TV Omar sama rakk borom Dakar Buzz donc ak euh, sit yi fi nekk yëpp. ñi nga xamante ni aussi teewuñu maa ngi nuyu tout la presse nationale la presse en ligne télé yi rajo yi wax dëgg yàlla euh, suñu liggéey buy yaatu rek yéen a koy partagé donc ñu ngi ziare ñëpp quoi vraiment. ni ma ko introduire avant ñuy ñëw ci clip bi. mu war a nekk sorti album ñu gis nga toog lu yàgg defoo ko li ñu diglu nag xam na ne liggéey am na ci. waaw xam nga bon comme li ma ko daan waxee rek tout le temps album bi vraiment. Euh, sénégalais yi yàgg nañ ko xaar wax dëgg yàlla parce que depuis avant Covid bi lañ ko annoncé yàlla dogal Covid bi ñëw jaam ak pexem yàlla ak dogalam parce que ku ne xam na ni avant tout d'abord la santé euh, et que Covid bi daf ñu impacté woon ci lu bari te euh, mu laal adduna bi donc bi loolu amee aussi ça nous permis aussi ñu gën a revoiraat sunu répertoire xool yan texte la ñu war a améliorer yan thème la ñu war a développer donc euh, au fur et à mesure yàlla dogal nag actuellement pare na te promettroon naa ko Sénégalais yi ne leen ren dinaa leen ko jox cadeau de fin d'année donc euh, pare na euh, incha allah rabi ñu ngi fas yéene génne na ko génne ko le 15 décembre bi ci kattanu yàlla jox ko Sénégalais yi jox ko melomaan yi parce que ñun li ñu mën rek mooy way enregistré arrangé mais nag gars yi nekk ci touche yi ñooñu dàq way ñooñu dàq déglu. voilà. Euh, génnagul xamaguñu lan la. waaw seetaan lan nga leen mën a wax. waaw mooy écouter. album daa ngi tudd écouter déglu leen. Mhm. waaw ndax thème ci nekk dafa bëri. Euh, amuñu choix te duñu choisiral suñu bopp. Mhm. Euh, xam nga un album de quinze à seize titres. Mhm. bien vrai que ëpp na loolu sax parce que quand même wax dëgg yàlla amoon nañu temps. enregistré nañu euh, morceaux yu bëree bëree bëree bëri mais dañ ci sélectionné rek quinze ba seize seize morceaux jox ko Sénégalais yi ne leen nag gars yi déglu leen. su ngeen dégloo. après ngeen wax ñu voilà. yaa ngi doon tourné tey clip bi nga woy. géer mm-hmm. mm-hmm. lan moo waral nga génne ko. waaw tey morceau bi ma doon tourné mi ngi tudd géer mm-hmm. ndax nag Sénégal dafa am lu nu baaxoo. Sénégal dañu baaxoo favoriser ethnie Sénégal dañu baaxoo valoriser ethnie ndax loolu mooy sunu base loolu moo fi te dëkk bi stabilité bi nga xamante ne tey stabilité bi Sénégal am si Afrique ba nga xam ne ñun en tant que ay artistes la ñu am chance di voyager ci sous région bi si diaspora bi tubaab yi dañu koy wax bëgg nañ ñëw seen vraiment bëgg nañ ñëw découvrir wala soit man ñëwoon naa Sénégal il y a dix ans revenir parce que vote pays xam nga euh, y a la stabilité tout ça donc loolu sac la loolu teranga la et que boobu li ko def mooy mag ñu baax ñi fi nekkoon tëdd fi ñaan fi am luñ fi gas suul ko am luñ fi ñaan ñaan ko fi seen borom ba seen borom nangul leen ko muy nitu diine yi nga dem ci nitu aada yi dem ci chef de village yi ñoom ñu def fi seeni xarbaax nga ñëw ci joolaay ñu ne ah joolaakat ak séeréer ay kal lañu ñu ne séeréer ak xalpulaar ay kal lañu ñu ne ah lébu yi ñu ne géer ñi ak géwél ñi géwél yi ndax dañ naan bu xare mësaan a jot géwél mooy jiitu dékku bal yi kon loolu ngalawaay warul réer looloo waral nag ma way géer waaye nag way géer c'est généralisé ndax du alal du juddu du def-def waaye valeur la ndax dama jékki-jékki dajeeg benn géer boo xam ne dama mës génn sama kër mu dogale ma ne ma ay waay sama doom pap dama laa bëgg man day day li nga woy su ma amoon àdduna ak li ci biiram dama la koy may génne 2000 francs may ma oh. parce que nee na sama fans la ba pare nag géer la ma ne ko ah maman lii de moo ma dàqal sax ay milliards ma jël ay 2000 francs mhm. denc ko mhm. waaye nag ci biir loolu man it ma génne teraanga ne ko man mii di géwél man it maa lay defal lii jox la ko addiya donc valeur yooyu moo tee Sénégal te bu fi jogee rek mara day taali et que nag comme que ñun c'est la nouvelle génération ñun ñooy relève bu musique sénégalaise ëllëg ñu ne nag nañu woy gér ñi jaar nag fa géwél daan jaar ak géeram mooy euh, yaa joxe benn leçon de morale. Mhm. vis des jeunes griots peut ma ko jàngee. Mhm. Mhm. mooy géwél warta nekk ki toujours la main. dëgg la war na di mën a ci boppam di waaw buur xam nga loolu mooy li may wax teraanga la. ndax waykat bi dafa ne doom bi dañ koy jokkalante. lii wër na ma. doom bi dañ koy jokkalante tey di nga gis géwél am gërëm jamonoy dox mu dem ba situation am gën a favorable gërëm. géram xewle mu wàcce boppam jël lu takku def ko ci ruqus mën a kaam fekk si géram guddi jox ko ko ba pare nag bu ca ëllëg sa ca xew ma mu ñëw futteeku takk ndiggam doonub géwél mhm. ne ko ndokkule géwélam jël ca lam ko jox géram jël ca la ko géwél ba jox ca guddi ga mhm. teral ko ca ndax loolu mooy Sénégal mhm. loolooy teraanga loolu nag la ñuy refléter valeur yooyu la ñuy andiwaat di ko wone ndax loolu bi fi jógee rek baaxul. Pape Diouf toujours au sommet de son art mën nañu wax ne que date yi gën a am importance macha allah yàlla teg na ko sa loxo sur le plan international même su le plan national. le 23 saalu presque 100000 euros Pape Diouf jël ko bi jotagul table yi jeex ak valeur bi ñu koy jaayee lan mooy expliquer loolu ba jamono yi ñu ngi sa soxna Bébé Bass ak si équipe dem fa le Sénégal de la diaspora gàttandu leen jiitu leen ñoom. ci maanaam ci date bi nga xam ni moom nga war a def euh, porte de maillot fële ci Paris le 23 décembre. waa buur loolu ñun duñ si dara. yàlla rek moo tax may wax. tey Pape Diouf lu mu am si aaram fu mu toll Sénégal la du sunu mën a way du sunu mën a musique du sunu personnage incarné wuñ ko musique la ñuy def muy sunu métier yàlla dogal nag nit ñi bëgguñu ñu nit ñu xam loolu. jox leen cër jox leen respect jox leen yitte yëg leen te loolu duñ si doyal ndax yàlla moo ne wàcce leen seen bopp ma yëkkati leen kon euh, heure bu ñu songee dara rek sénégalais yi ñoom ñoo ñuy sagal ñoo koy portel seen bopp kon bés boobu wareef la ci ñun ñu def ko ndax nag dañ doon tëgg di am bénéfice di ko suturloo waaye nag léeg-léeg nga gis ni que boo doxee ba mu yàgg ak diir nga ne ah man kat li ma am tey réew mi ma ko jox kon ma ne li ma réew mi jox naa ci comp seddoo ko ak ñoom te comme ni ma ko waxee j'ai l'habitude de le dire projet bii ma jublu man maa jug bénévolement xaaruma ci kenn ku ma woo tappal ma ndombal tànk wala ku ma ci influencé déedéet yéeg yéeg la si man ma dem ci àll bi tëggi concert di ñibbisi ci fajar gi xale boo xam ne sax amul 10 ans xale bu jigéen jóge village di dem village di jéggi autoroute bi oto jaar ci kawam mu jóge fa faatu lan moo ko waraloon da doon jàngi je me suis posé la question ne ah mais pourquoi pas man en tant que artiste ma fekke fee bi munuma ci bay waar awma munuma mais am naa sama baat naa utiliser sama baat chaque année bu ko yàlla dogalee ma organiser benn soirée caritative boo xam ne fonds yooyu du dem du dugg ci sama poos mais lu ma ci am néew ak a bari dama koy dajale xool sélectionné juróomi dëkk ci àll bi yoo xam ne soxla nañ ko yitte woon nañ ko ñu dem tabaxal leen fa ay classe classe yooyu tey xale yi fay jànge bu ëllëgee kenn xamul lu nuy doon muy jaamu yàlla boo xam ne man dama ko fas yéene donc te maa ngi sakku ñaan di ñaan yàlla suñu borom yéene bi ma si am yàlla na ma si yàlla dooleel ba yéene bi ma si am tibbee ko sama xol ma réussir ko parce que nag lépp lu may dugg rek ngëm-ngëm laa koy demee ak wàkkirlu si suñu borom. Mhm. ak jël projet bi jox ko aussi sénégalais ndax am na ñu baax ñu mën a def teraanga ñu mën a dimbali nit te yàlla rek tax te bëggunu ko leen yëg kon projet bi maa ngi ciy woo ñëpp ndax du sama projet man rek. te benn lam rek mënul yëngatu donc àdduna jàppalante la social la euh, accompagnement la donc j'appelle tout le monde te it ki ma ci njëkk a woo mooy suñu président son excellence monsieur Macky Sall maa ngi ko ciy woo ndax nag yàlla dogal na bi mu nekkee ci boppu réew mi ba léegi man Pape Diouf musuma dugg ci dara te jàppale wu ma maa ngi ko ciy tàllal sama loxo di ci tàllal askan wi yëpp. ndax c'est le père de la nation te projet bii ñuy def projet nation bi la kon vraiment président maa ngi lay talal loxo ci projet bi nga xamante ni tey am naa ko ngir suqali éducation jàppale yenn dëkk yi nga xamante ni soxla nañu ay classe ay jumtukaay nga jàpp ci accompagner say doom di woo aussi les bonnes volontés démb suma benn xarit mi ngi nekk ba France ne ma pap lii de yéex naa ko yëg mu ne ma bërki demb lañ ma jox ay conteneur u sac mais saag yooyu tey mais am na xale yoo xamante ni ñi ngi nekk si àll bi amuñu sax table banc bu ñu toog jàng ay briques la ñuy teg di jàng waxantuma laa na ko am saak def ci say bagage def ci sa gurtu ndox ndax àll bi daal naaj bi day tàng kon maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn amul xaj amul set. macha allah euh, bu ñu déggee Pape Diouf dafa mel ni ni euh, tey da nga engagé wu socialement comme ni nga ko doon def toujours ci suuf te kenn du ko yëg. Mhm. Euh, mais ci jamono ji nga xam dañu nekk ci artiste bu nekk tey ci biir Sénégal fëgg dënn gi daf fi bari maa fi nekk daf fi bari mën a ma ngi mën a mën a gi daf fi bari mu mel ni Pape Diouf dafa décider en tant que tey un leader de la musique sénégalaise jël benen voie mooy nekk un acteur de développement mais lépp lu mu am mu partagé ko ak société bi. waaw xam nga euh, je disais que loolu sax yàgg nañ si. parce que de 2009 à 2019. Euh, ci lañ ñu nommé woon ambassadeur africaine di mille 2009 lañ ma tappaloon raaye boobu ñi ma ko tappaloon jóge ba Cape Town ndax foofu la euh, siège bu mag bi nekk beneen siège bi mi ngi Mauritanie beneen siège bi nekk Sénégal. ma daje woon ak ñoom Mali 2004 ñu gis sama liggéey xalaat ne seen cause man mën naa ko porter ñu ñëw fi Sénégal 2009 décerné ma prix boobu pour dix ans donc ak yeneen ak yeneen Zeyna. j'ai été euh, ambassadeur pour lutter contre le tabac. avec la le ministère de la santé sunu yaay Eva Marie Coll Seck. ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér ak barkeel njabootam. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey mënuma sax taxaw di ko lim mais loolu yëpp sutura yàlla la. Mhm. ak sénégalais yi aussi ndax nag euh, defe naa ni tey nit buñ la wóoloo ba dira dénk dara. Mhm. ñu la koy dénk am nañ ay conseil wala am nañ ay jege jegeñaale danañ ne waa mais Pape Diouf mii kat dañ ko bëgg a dénk projet bi lu ngeen ci xam. Mhm. dina am ñoo xam ne dinañ ne ah mais ah c' est bon mhm. il a mhm. waaye am na ñoo ñoo xam ne mën neen mais est ce du ngeen def ndànk ñu xaar mhm. mais ndégam nag loolu kon image dafa baax ci artiste en plus ah mais image baaxul rek ci artiste dafa baax ci lépp d'accord image baaxul rek ci art yamul rek ci artiste mais dafa général dafa baax ci lépp donc loolu aussi Zeyna dañ koy sant yalla ba nga xam ne tey euh, projet yooyu mbay yàgg nañ ko di ko porter waaye bii nag daf ci raw li tax mu raw ci mooy dañ ne réew avant tout la santé wér yaram waaye nag bu loolu weesoo mooy éducation jàng mhm. ndax boo jàngee dinga am xam-xam mhm. xam-xam nag boo ko amee même boo mënul yor ñëpp mm. sa xam-xam dalay jariñ parce que di ci mën a yor sa bopp am ci njaboot mm-hmm. fonde ci famille macha allah waaw euh, Pape bu ñu koy dégg dañuy gis expérience bu mu am ci ci wàllu musique euh, mais bu ñu defee seetlu ci ginnaaw tuuti euh, tey sa parcours moo la ko may mm. parce que Pape bi muy ñëw ci scène musicale dafa fekk ay mag yoo xamante ni kàngam lañ sur la musique sénégalaise Pape s'est battu ba heure bi tey il se bat pour sauver la musique sénégalaise waaye aussi nekk ci icône yi di continuer dina ci icône artistes yi tey génération bi nga leen di observer euh, nga gis souvent artiste day taxaw ne diw jàppale ma Youssou Ndour dafa génne loxoom ci musique bi mm-hmm. Youssou Ndour jàppalewul artistes yi euh, te yow nga bokk ak ñoom génération xeex ba yegg si fii tey ban conseil nga leen di jox waaw euh, conseil bi ma leen di jox rek mooy du ma leen conseil mais dama leen di ñaanal mm-hmm. boo déggee man leen du ma leen conseillé mais dama leen di ñaanal ndax wax dafa metti trop te nit ku nekk da nga am sa idéologie et mhm. on est dans un pays démocratie mhm. mais man par rapport ak fi ma jaar lay nettali rek man sama jaar-jaar mooy euh, bi may door Lemzo Diamono bu ñu daan répété dañ daan dox amul woon paas mhm. dañ doon répété lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ñu joué dimanche ñu noppaleeku de quinze heures à vingt deux heures boo amul man su amul woon passe pour dem répétition damay dox. et que même buñ ma convaincul répétition en tant que chanteur parce que léeg-léeg orchestre bi dañ daan def ay atelier donc du ñu soxla vocaliste yi mais man maa doon sacrifié wu di dem di fekkee répétition musi musiciens yi parce que dama doon sakku xam-xam dama doon jàng bi loolu weesoo aussi ba ñu intégré ma Lemzo Diamono ma bokku ci ténor yi ah, dañ ma yaatal dañ ma yaatal Mamadou Lamine Maïga Amath Samb dañ ma yaatal musiciens yi yaatal ma donc depuis boobu peut-être nag dañ naan Pape dafa simple Pape dafa modeste Pape dafa yaru parce que jékki-jékku ma rek nekk ci kanam dama ñëw nekk waykat am fu ma jóge ñu dugal ma ci groupe boo xam ne groupe la ma nekk si ginnaaw di aw après ma nekk si kanam di woy donc formation boobu ma am moo tax bi ma génnee ba ber sama daara ma xam secret bi li si nekk ma ne ah musique dafa laaj tër bi waaye nag pour nga xew. pour nga fi nekk tout le temps. il faut nga modeste jox say mag cër. jox ñëpp respect jox ñëpp cër. gis nga tey jii ba album bi ma war a génne la quinze. am na grand yoo xam ne yónnee naa leen ko. waaw déglu nañ ko ma laaj leen seen xalaat. ne leen grand waaw déglu leen. lan ngeen ci xalaat. Youssou Ndour ci la bokk. non Youssou bokk ci. Mhm. malheureusement bokku ci. mais euh, bu ma ko woowoon. gis na bu ma ko woowoon waxuma la daf may jox xalaatam mais day déplacé wu ñëw studio wallahi parce que tellement grand bi am na simplicité boobu te loolu lu koy neex la ku mel ni Fallou euh, expérience am kenn dootu ko ku ñu demee ba tuddee la le chef d'état-major des ambianceurs kooku ambiance ci moom la fekk baax te lam fu liggéey ba tey à vie du fi jógee ñëw na studio def na fa ay waxtu déglu la li ma liggéey. Mm-hmm. te kooku bu waxee rek mel ni ne Youssou wax na. bu waxee mel ni na Nder wax na. mel ni na Baaba Maal wax na. mel ni na Omar Pène wax na mel ni na Ismaïla Lo wax na. donc euh, respect. Mm-hmm. ak discipline. dafa am solo ci wàllu wu ne. kon maa ngi ñaanal sama rakk yi nga xam ne ñoo topp sama ginnaaw ñu gën a takk seen digg. gën a góorgóorlu te nag bu mu metti ba kenn découragé. ndax yàlla dafa ànd ak aji woy muñ yi ndax àdduna moom li woykat ba naan xiif lekk gëmantu nelaw tilim fóot sonnu noppalu boo xiifee boo lekkee ba suur lan ngay bëggati boo gëmmantoo tëdd nelaw ba yandoor lan ngay soxlaati sa yére bu tilimee nga am dooley fóot ko ba mu set wala ñu fóotal la mais la vie elle est belle dara ñoruñu fi bañ koy màcc àdduna dafa ànd ak muñ lu jot day yomb kon gars yi góorgóorlu leen téye seen métier di ko gérer sérieusement loolu mooy waral à chaque fois da ngeen fi nekk am na ay jamono yoo xamante ni heure añ bu jotee mais damay war ngénte pour añ foofu ah si damay wër ngénte pour añ wala sama yaay di doomu géwél dem togg ci ngénte ñu xaar mu ñu ñu yàkkal ko mu ñëw ñu añ mais formation yi nag boo fa jaaree te loolu su ma koy wax damay fier su ma yàlla defaloon teraanga ba may fii ci ay milliards ci laa koy gën a wax ndax nag c'est la kër ki qui parle kon man lépp lu ma def ci lu baax gisuma ko fàtte naa ko xooluma ko voilà c'est ça nga nga wax lan ñu jënd table fanse yi xarit yi le 23 décembre. album bi génn la. waaw je lu ñuy waaw album bi moom. gars yi écoutez bëgguma ci sax commentaire ndax. day euh, surprise doo ko wax. waaw donc loolu lañ décidé album bi la 15 di ngeen ko am. ngeen déglu nag wax ñu seen xalaat. waaye li nga xam ne nag mooy. li ne këtt te na jonn. mooy le 23 décembre. muy euh, gala de l' mhm. ku ci jënd table. Mhm. na mel ni tabax nga classe ku ci jënd benn billet bu deux cent euros mm-hmm. na mel ni tabax nga classe ndax bu ñu paree liñ ci amakus néew mm-hmm. bu ko matalee dañuy dem teg première pierre yi bu ko matulit lu mu matee mm-hmm. dañuy dem teg premier pierre yooyu ndax nag olof dafa ne gor sa wax ja jërëjëf ñëwee def treize janvier sant <laughs> treize janvier nag moom sama rak moo xewlee <laughs> muy mbay te cant moom ku santul yàlla du la dolli kon le treize moom incha allahu rabbi dinaa def délégation ànd ak suma ay rak ñoom maxtaar mm. ñoom xaadim mm-hmm. ñoom sëñ Mbacke Diop ñoom Kétiop madame sax dinaa ko indaale ñu ñëw sagal la ndax nag mbay ah euh, ki la yëg rek moo la sonal waaw te bés du tuuti borom lay tollool fekk nga ma fu heure bu ne naaj wu tàng lu mu xat-xat-xat di nga mbëkkante dinañ la dëgg dinañ la gaañ nga ñëw denk ma sa micro kon nag wareef la sa bés bu jotee ñu ñëw delloo la njukkal. kontaan waaw 2023. incha allah Zeyna ñan ko. waaw ñaan ko ñaan ko rek yàlla baax na. waaw yàlla nañu yàlla may fekkeeg wër ak tal rek. incha allah rabbi jërëjëf. jaa ngeen jëf.